mul ñoom ñu ne lii am na c'est entre ñoom man je me dis que tamante dama jiiñante amu fi nañu liggéey nañu def nit ñi gis ñoom ñoo mën laaj réew mi li ma gëm nag mooy def leen a bett ñoom xalaatuñu woon ñoom pense que en 2024 non ils pensent que ils ils allaient être le chef de l'opposition man je man loolu laa analysé. ak képp loolu nga gis mais li ma gis mooy c'est parce que. ñoom dans leur discours dañuy non mais attends c'est politique. Non, pas que. parce que on non dans ma mobilisation ndax lañ naan am moom la Amadou Ba doon am noonu la noonu doon am moom la keneen ak keneen doon am. kon man gaw ma mbooloo man gaw ma mbooloo. li ñu am ni dañ man carte laa gëm. Anta Babacar Ngom bu daan woote day fees dell te gis nga ak keneen ak keneen ak keneen amul différence ma ne la foo tëgg tama nit ñi wuy si la man li ma gëm mooy lii leen sénégalais yi gis nga Modou Awa man dafa am lu may wax nee naa leen bu ñu xajamal seen ndam parce que nit ñi dañ naan Macky sàll moo leen jàppale man gëwuma loolu. Mm-hmm. les Sénégalais ont voulu et Dieu a fait. Diomaye jël réew mi am 54 pour cent loolu mooy dëgg kenn du kenn ku leen jàppale Sénégalais ñoo leen bëgg fal leen. Mm-hmm. kon bu ñu xajamal seen kii xam nga kon man duma wax loo xam ne que mais ñoom pare wu ñu woon pare wu ñu woon. mais fan loolu. non ils avaient un doute. na gëmuñu woon seen bopp comme ni ñu ko doon gëmee parce que man mënu ma ne xam ne yaakaar ne da gëm sa bopp ngay wax yenn yi comme Ousmane bu toogee naan Mauritanie wala gaz bi wala lii 10 pour cent lañ ci am Mauritanie def ñuy de ci koo xam ne da nga jël réew mi suba je pense que tu un autre comportement à avoir et non comportement bi mu amoon wala waxu dof yi mu doon wax pour man y avait c'était une autre façon. de faire non du tout parce que sànq a ñàkk solo léegi c'est pas c'est pas c'est pas pour critiquer non non non non yàlla nag bindee bindeewu may am rancune man moom franchement confinement maire mm-hmm. dafa metti di téye rancune je di ce que je pense si si c'est bien je di que c'est bien mais nag ku nekk sa jëfi démb da lay dab sa mooy moo lay xaw ma naka lañ jeexee moo lay di dab par exemple